asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéenay faral di euh, connecté ci chaîne ci chaîne bi di El Média euh, tey nag ñu dalal fi benn ndaw boo xamante ne nii euh, boo lañ ko gisee ci melokaanam moom yaay Fall moom lay roy ci loolu lay dox boo xoolee ni nga xamante ni moom la solo sax loolu ngay gis ci moom moom nag mu nekk ndaw nekk fi nga xamante ni mooy Safir FM ñu gisoon ko foofu tey nit ñi di fa woote chaque jour auditeurs yeeg auditrices yi ñu gis bu fa nekkee nit ñi nit ñuy duggee foofu ak ni ñu ko fay wëree ni ñuy ràngee ci moom ñu gis tamit bi mu jógee foofu am fu mu dal fii ci Dakar nit ñi di ko fa fekk fu ne nit di fa jógee ñëw di ko seet si euh, loolu nag nekkoon lu ñu jaaxal trop te mu nekk xale bu ndaw euh, taxoon ñu dalal ko fii ci Elvision Média ngir waxtaan ak moom euh, mu xamal ñu lan moo waral lu mel noonu moo tax tey ñu dalal ko kon li ñu njëkk a def mooy dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom lay ñoom ñoo koy seetaan soxna si bi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. waa jëwriñ ñu ngi lay ziar bu baax di ziar ñi fi nekk ñëpp waa di sant yàlla di julli ci yonent bi sangu-sang yi sant Cheikh ma Bamba Xaadimu Rasuul sant Cheikh Ibra nga xam ne dañ koo bëgg lool waa di la nuyu bu baax yow tamit euh, Safri FM boobu nga dugg foofu laa nekkoon waa comme ni ñu ko waxee rek macha allah foofu laa nekkoon di fa liggéeyee yi bëgg ma trop comme ni koy waxee. Mhm. waaw euh, gars yi bëgg trop comme ni nga koy euh, waxee euh, tey lan nga ñu mën a expliquer ci nit ñi lu ñu lay fekkee foofu ak lan moo tax ñu la fay fekk ak fii nga xamante nii moom nga nekk tamit nit ñi di la fu fekk si nit di jóge fu nekk lan ngay def ba waral doomu aadama yi di la wër noonu di la seet lan moo tax. waaw El Hadj boo nee Safri FM boo seetloo la fa ëpp doole mooy wàllum gisaane Safri FM loolu moo fa ëpp doole. Euh, man gisaane laay def damay seet damay ñaan euh, képp koo xam ne nag daan nga ma seet si boo nee salaamaaleykum dama lay xaw a yem si benn côté ndax li ma nekk xale euh, yàlla suñ borom nag mooy jël lu ko neex mu teg ko si doomu aadama bi dañuy faral di dégg ñuy wax naan xam boo koy seet amul ci ndaw amul ci mag dafa doon loo xamante ni dañ koo doon te loo doon lu ne mu dëgër sama maam laa ko doon noonu Euh, sa maam nga ko donnoo kon da ñuy bëgg a wax rek ne euh, da ngay def li nga xam ne mooy gisaane di seet loolu moo waral euh, nit ñi fépp foo nekk ñu fekk la fa di la di la rang ah di jóge fu nekk tey boo ñu doon wax mbir moomu ngay def muy gisaane naka la ñëwee ci yow ba tax tey nit ñi di la wër. man wàllum gisaane ni ñëwee si man mooy man dama daan jaayal sama yaay di ko liggéeyal xale laa nag. boobaay léegi presque deux ans lay tollool dama daan xëy di ko jaayalil marché ak di ko wàccel mais sama maam mi nga xam ne moo jur sama yaay moom dafa amoon ay rab dafa amoon ay jinne Ablaye Ndiaye la tuddoon yaakaar naa Ndakaaru gi ñu nekk amoon na fi ay bi su ma waxee tur boobu naam ñoo xam ne dinañ ko xam mais bi ma nekkee foofu si biir liggéey bi dama am un am lu ma fa seet si mais booba man xaw ma woon lan la ni maa ngi toppatoo sama njaay di jaay sama jaay euh, maa ngi koy considéré comme nit nii rek ndekete alors que ni boobu du nit bi ma demee ba sa biir la feebar bu metti dal ma daal te jour bu ma ko gisee noonu nag am na lu baree baree bare lu ma yëg sama yaram loo xam ne dëgg yàlla mënu ma toog di ko nettali euh, bi bi ma xëyee sama papa dem si ay mara di ko laaj sama doom dafa am lu mu gis démb waaw ci la ko expliqué ne ko kii li maamam nekkoon si moom loolu moo ko feeñu si mu def si man loo xamante ne bëri na torop dundu naa si lu metti su may woon ne feebar naa deux ans euh, bi yàlla dogalee ma wér ànd ak tan si la ma yàlla mayee xam-xam boo xamante ni aajowul may laal dara dama naan la jàkk di la wax loolu la yàlla def loolu loolu la yàlla def euh, mais dañu bëggoon nga expliquer ñu tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo la feeñu ci ginnaaw bi nga toggee di liggéeyal sa waajur bu jigéen di ko jaayal am lu jóge fenn ñëw toog sa wet feeñu la moom bi mu la feeñoo naka la la feeñoo ban genre melokaan la la la la jox ba nga xamante ne ni euh, keroog am na loo yëg sa yaram bi mu ñëwee bi mu toogee mi ngi ma jox comme nit jëmmi doomu aadama la yor mais soo ko xool da nga xam ne lii du nit Euh, li gën a garaaw mooy des fois da ngay gis nit dina jommal ko mais su koy jommal du nekk loo xamante ni mm-hmm. euh, day toog man nag li ma joomal daa ñëw toog ma toog. Mm-hmm. muy def loo xam ne. Mm-hmm. ak di ko jëf may gis. laalu ma jegew ma. si la gën a tur boobu saalit naa sax. parce que dama dund loo xam ne gis loo xam ne mosuma ko dund ci sama àddina tey jaaxaloon na ma daal. parce que boobu may wone samay samay at si la gënoon a néewee. waaw. waaw euh, comme comme ni nga ko waxee euh, bi nga ko gisee euh, vraiment mi ngi doon def ay manière ay mbir yoo xam ne mbir yooyu jaaxal na la ginnaaw bi nga nekkee xale nga gis loolu bi nga ko gisee ndax da nga yuuxu wala da tiit ak moom yan melokaan la doon def ba nga xam ne lii nga jàqaar loolu daf lay jox li nga xamante ne nii wuute na ak doomu aadama. bi ma ko gisee nag xam nga man dama daan jaay ay reer laa doon jaay mm-hmm. bi ma ko gisee nag mu toog moom defutoon benn sës daal dafa ñëw ne ma jaay ma kafe yaay faal bi. Euh, boobu nag jamono jooju dama daan léttu sax mees daaw ma def ni yoru moon ay rasta euh, yoru moon yëfi yaay faal daal comme xale yi ni ñuy def di léttu di kii noonu laa doon def mais moom bi mu ñëwee yaay faal la ma wax dama yaay faal jaay ma café affaire boobu nag jaaxaloon na ma daal parce que boobu dund ma woon yaay faal gi xaw ma ko woon léegi bi mu toogee noonu ba ma jaay ko kafe bu ba pare mu jox ma xaalis ma toog mu toog ñu jàkkaarloo mais bi ñu jàkkaarloo dafa mel ni dafa am lu mu dugal man dafa mel dafa ma masse courant daal ma toog sama fit dalatul ma woo sam ne ko maa fii nii si marché bi mais ñemeetu ma parce que dafa am lu ma gis mais bi ma joxee kaas bi dafa ma masse bi may woo sam papa avant muy ñëw nag def na fa kéemtaan ku ne parce que wan na ma ba wan ma nit ñoo xam ne xaw ma leen dund naa tamit monde boo xam ne xaw ma koon bokkatuma daa woon si àdduna bi damay toog sax ba mu yàgg may laajte ndax man maa nekk nii ba tey parce que dugaloon na ma foo xam ne di ma wan loo xam ne xaw ma ko si la ma defee feebar bu metti nag bi ma feebaree ci deux ans yooyu nag lu nekk sama yaay nag moom it maa ngi koy jéggalu bu baax ak sam papa parce que lu ne wan naa leen ko feebar deux ans boo tëddee doo gis ay doomu aadama ñeneen ngay gis ñu lay dund loolu loo xamante ni aussi xamoo ko loolu daal si laa jógee suñ borom def ci man loo xam ne dama lay xool rek di wax gis ci nekk si yow euh, ba pare yàlla dimbali na ma képp koo xam na ñëw nga si man di ñaanlu ma lay ñaanal lépp lu ma la ñaanal da nga koy gis moo tax dakaar fépp fu ma ne koñ bu ne dëkk naa fa fu nekk nekk naa fa waaye fu ma nekk doom aadama yi dañ ma fay fekk parce que man aajowul may wax sama visage day wax man jorul may wax sama visage mooy wax nga xam ne carrément kii li mu nekke yàlla moo ko ko may. dëgg la ki li mu nekkee yàlla moo ko ko may comme li nga wax rek euh, si sa maam sa maam bu nga xamante ni mooy sa maam bu góor moom moo ko doon def euh, yàlla dogal tey euh, bi mu génnee àdduna nga nekk ndaw nekk ki nga xamante mooy sëtam ndax dañuy wax naan li ci maam sëta koy jël. kon yow loolu nga bëgg a confirmer ginnaaw bi nga xamante ni loolu mu ngi la dalee ci liggéey bi nga doon def doon ko defal sa yaay mu dal la ci léegi tey seet boobu tey. Euh, naka nga koy seetee ça veut que da ngay jël ay pétaaw wala da jël euh, alxuraan wala ndox wala dara parce am na ñoo xam ne dañuy teg ndox am na ñoo jël pétaaw am na ñuy rëdd ci suuf am na ñuy seetee ci bant ba ci seetu seeti nii dafa nekk ay façon yoo xam ne kenn ku ci nekk ak na nga xamante moom ngay seetee mais yow naka ngay seetee. oh El li nga xam ne danga koy seet di ko làmbatu ak li nga téye bokkuñu man li nekk si man waruma ko ci dara dangay toog may wax. bu la neexee nag yaa xool boo ma waxoon micro bi sax seetal ma si dama ciy seet euh, xam nga nit ku ñuul gëmul wax kase preuve laa bëgg bu la neexee loo ma tegal dama la ciy seetal mais man du ma petaaw du ma petaaw mais loo ma tegal dama la ciy seetal Euh, loo ma tegal da nga ma ci seetal mu nekk wax joo xamante ni euh, soxna yaay faal bi tey moom moo ko wax euh, tey ndax nit ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw di la seetal da nga leen di seetal rek bàyyi leen wala boo gisee ci ñoom li nga xamante ni mooy li ñuy tax ñu doon seetlu boo ko gisee ba pare ndax da leen di génnaloo ay sarax wala da nga jox da nga leen jox ay gàllaaj wala da nga leen fan nga nan ngay mujjee ak ñoom après. man ku ñëw si man il faut ma ñaanal la parce que la ma lay wax moo tax da ngay dund benn mbir 10 ans ferme. boo ñëwee ma wax la ko te ay ay preuve daal laa lay jox yu leer nañ ba tax na képp ku ma seetal da ngay bëgg ma ñaanal la ak koo mënti doon xëy ne nag ñëpp mënuñoo bokk gëm ñëpp mënuñoo bokk gëm mënuñoo bokk ne kii xam na dara ñi dañ naan xam na ñi naan xamuñu mais ku ñëw ba si man dinga xam ndax kii xam na wala xamul mais man ñu ñëw si man mu ñëwoon di toog fii di wax kon duma ma fi jóge tey est-ce que est-ce que tey euh, ñi nga xamante ñooy wax mënul mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo mosul jëflante ak yow ñoo koy wax wala ñi nga xamante ne ni ñoom jëflante ak euh, nekk nga di jëflante ak yow euh, ndax ñooñu ñu ngi confirmer ne li nga lay defal ñoom ñu ngi koy gis. non man ku ma jëflanteel doon a mënul. Mhm. ku ma jëflanteel doon a mënul mais su ma la defalul danga naan xale la est-ce que xam na dara loolu xam nga sama jëmm nii nii dafa dafa dafa xeebu daal. jëmm ji moo xeebu mais baatin ba ci biir di daw suñ borom xas na ko ba def mbindaafoon matu ci dara yàlla moo ko xas a def si ñun ba pare àdduna nag moom ñëpp mënuñoo bokk na baax na wala mën na loolu kenn mënu ko am man li ma yaakaar mooy nit ki bu fekkee ne euh, ñëw nga ci jëmm ji di ko seetlu euh, moom mu wax la li nga xamante ne moom moo taxoon ngay seetlu te naam li mu lay wax lu déggu la ci yow kon euh, kooku bokk na ci ki nga xamante ne dafay confirmer li nga ko wax ki nga xam ne ñëwul ci yow nag defaloo ko dara ndax li muy wax daf koy teg ci dégg xalaat yaakaar naa rek la ko mën a teg ak xalaatam bu gàtt tey li ma bëgg a laaj mooy ndax da ngay da ngay da ñaanal nit ci ay ay ay këyit comme ni ñu koy waxee ay faru rab ay ay ah comme ni ko nit ñi di bëggee euh, comme góor ñi parfois ni ñuy waxee ay ngóoraak ak situation yooyu xew ci àdduna bi bëri nañ sëriñ yu bëri yoo xam ne lu ñuy wax ay hémorroïde la ñuy wax euh, faiblesse sexuelle ah euh, faru rab ah ku bëgg jëkkër ak ku bëgg tukki yooyu moom bokk na ci problème yi nga xamante ni sëriñ ci bëgg nañ ko trop te ñoom dañuy wax ne ñoom dañuy ñaan si yooyu ndax yow da ngay ñaan ci yooyu noonu. élage euh, yàlla dafa dogal benn mbir mooy kenn du taxaw naan maa man lépp mais man lépp laay ñaan ba mu des lu bon lu bon rek laa dul def ni euh, ñëw si man di ñaanlu tamit comme ni nga ko waxee sànq bari na te lii ma leen di ñaanalit bari na mais man euh, këyit des fois dama si ñaan yenn saa yi nag juróom ñaari sëñ Fall rek laa lay ñaanale gis nga ñaan soo ko gëmee bu nit ki tiflee jox la sax suñ borom da koy nangu ndaxte lépp lu nit di ñaan na la leer na ci yàlla lay jóge te ñun suñ lépp mu ci suñ borom dañuy julli dañuy ñaan yàlla saa suñ xëyee yaay Fall ne man mais yaay Fall laa boo xam ne damay julli di ñaan suñ borom parce que ñaan soo ko déggee man damaa jàpp ne yàlla nga war a ñaan te yàlla nga war a ñaan yàlla di la may man nag yàlla laay ñaan ba tax na bépp aajo bu doomu aadama am soo ñëwee ma ñaanal la suñ borom suñ borom faj sa aajo naka ngay ñaanalee suñu borom da koy bindal ay xaatim mu takk wala danga koy jox ay ndomba wala lan nga koy jox wala danga koy jox ndox mu naan wala dangay ngay tàllal sa loxo rek ñaanal ko suñu borom. Euh, yaa xool bu la neex bu neexee mën naa laa bindal su la neexee mën naa laa jox nga takk bu la neexee mën nga laa jox nga sangu bu la neexee mën naa laa ñaanal man ci sama bopp direct. Ah, kon loolu kon loolu kon loolu leer na euh, kon beneen bi nga xamante moom lañu bëgg xam. Euh, tey instant bi nii euh, ku la bëggoon euh, seet si pour nga ñaanal ko euh, fan lay ñëw pour pour fekk la foofu pour nga ñaanal ko. ah mun na ma fekk yëmbal. Mhm. parce que instant su ma yeboo maa ngi yëmbal. Mhm. comme ni ma la ko waxee sànq rek chaque jour maa ngi tourné fu ne mais instant maa ngi yëmbal sama kër yaay. Mhm. waaw mu yor ma fa nag yorin bu rafet xam nga man moom neexumaa dëkkal. waaw ndax boroomi rab moom. chaque jour ak na muy déconné rawatina man li may wax saa ne rek ku ma jàkk xam ne man rek maay rab mm-hmm. man rek maa jinne mhm. sans jinne sans dara man rek rab laa man rek jinne laa mhm. euh, wax nag li ñuy wax rek dafa neex mais wax li nga xam ne mooy dëgg dafa daaq mhm. maam dangay ngay gis euh, ñoo xamante ni dañuy wax te li ñuy wax leen na ak sa digganteeg yàlla loolu amul ba tax na booy wax da ngay wax ak sa digganteeg yàlla te man li may wax lépp daf ma leer moo tax ma di ko wax ma dund ko ak leneen ak yeneen loo xamante ni mënaguma ko expliquer loo xam ne archive lay doon fii nii mhm. ci sa biir kër gii nii mhm. fi lay lépp di leere incha allah euh, maa ngi yëmbal ku ma bëgg a fekk ku ma bëgg a gis ba ma ñëwee yëmbal mhm. si tëri marée bi station bi di ma gis su fekkee aussi da nga xam da nga tukki soo ma woowee téléphone dama lay seet man damay seet si téléphone ndax rajo ma fa nekkee dama daan seet direct euh, bu fekkee tamit danga nga bëgg ñu ñaanal la boo wootee samay numéro incha allah dan lay ñaanal boo nekk Europe yaa xam nga nekk Sénégal yaa xam foo nekk. mais incha allah. Euh, kon euh, mun nañ wax ne tamit euh, sénégalais yi nañ la xaar fii ci elevision Vision Média ci li nga xamante ni moom mooy direct yi ñuy def ci ci El Vision Média ci YouTube bi di ko def ci Facebook bi aussi di def tamit yeneen waxtaan yi nga xamante ni war na fi am tamit fii ci El Vision Média kon dañuy wax ne rek Yaay Fall bi mi ngi noonu képp koo xamante ni soxla nga ko yan numéro lay lay def la mën a composer pour jot ci yow. waaw mën na jël samay numéro bu fekkee Tigo la nga jël 601 62 86 601 62 86 wala nga jël 736 18 94 mooy sama numéro orange numéro yooyu ku ko jël incha allah di ma jot te dinañ déggante waaw bépp aajo boo am nag si àddina dinañ ko diis bamba comme ni ko sama maam daan waxee ndaxte loo ko mosaana diis te naan la bamba baax na te ñun suñ lépp suñ bàmba la chèvre loolu la ñuy dund waaw comme li ma la ko waxee saasu na rek euh, comme suñuy numéro 736 18 94 boo jëlee numéro incha allah di nga déggante ak ñun soo ñu soxlaa dañu fekk yéen ba loolu ñu fekk ñu fii si biir kër gi fii. kon léegi lan ngay tàggatoo. lay tàggatoo. Mhm. ah di santaat yàlla bu baax rek. Mhm, mhm, di sant Cheikh Ibra sama sëriñ bi. di sant euh, waa Ahlu Café général. sama daayira boobu. nga xam ne ñoom it dooleel nan ma trop macha allah. Euh, di sant sama yaay bu baax nga xam ne sama lépp moom la dama ko bëgg torop loolu la ma njoogu di ñaawale ak bëgg yaay ji euh, lu ma am sama yaay la su may liggéey sama yaay la parce que nag euh, fii doom bu fi toog ban lay dégg ak ku mënti doon ci àddina sa ndey moo la ko liggéeyal te li ñu wax rek olof Njaay añu joom doom comme ni ñu ko waxee saa su ne di sant yàlla di gërëm sama papa tamit aussi moom tamit sonn na sama feebar deux ans ku ko yor malaat chaque jour ak lan lay wan xam nga ne loolu doy na waar moom sax mësul bëgg may nekk si ay média di wax wala ma nekk si ay rajo di wax mais c'est que nit ñi ñoo ko bëgg si man te boo gisee ma ñëw fii nii euh, di wax fii pour nit ñi di ma dégg dama bëgg laa maam dimbali ñi nga xamante ni soxla nan ku leen dimbali moo tax sax ma ñëw fi mais bu dee ay nit macha allah suñ borom mi ngi ñu koy may mais ñi nga xam ne seen aajo bëgg nañ ku leen ko fajal te amuñu ko ñoom ñoo tax may ñëw fii sant naa ñëpp gërëm ñëpp di sant sama doom jee ñoo gaaw mhm. ak Mbaye Ndiaye waaw sant ñëpp daal koo xam ne daal xam nga numbe rek numbe sant na la gërëm na la lu ma limee damay juum mhm. waa dëgg la kon kon mbokk yi yéen ko yéen ko déggandoo déggandoo kookoy ay faal bi ki ñu naan jinne ji ah moo nekk noonu tey moom lañ dalaloon fii ci El Vision doon waxtaan ak moom ndax euh, dafa am loo xamante ni ñu ngi koy gis ci nit ñi ñu koy wër di di ko seet fu nekk mu nekk ndaw di seet euh, tey ñu bëggoon yaatal ak moom ay waxtaan tey yàlla dogal ñu yaatal euh, bi ñu yaatalee lool moom moo fi génn comme ni ngeen ko déggee rek ay numéro mi ngi noonu képp koo xamante ni bëgg nga jokko ak moom mën nga ko woo ci numéro yooyu bu ko defee ngeen diisoo ci li nga xamante ni moom mooy seen i soxla mu wax leen ko kon gars jaa ngeen jëf